imaam Xali Badara Ndaw mi ngi gën a jamono ajuma le 6 mai 1960 ci dëkk bu ñuy wax Dalan Malick ci departement Kaolack ci gox bu ñuy wax Gandiaay bi matee dal jàng ci la ko waajuram wu góor yóbbu daaree kokki te sëriñ Ahmad Saxir Lo fa la jàngee ba mokkal alxuraan jaar na ci daara yi bari jaar na ci daara yi sëriñ Mor Mbay Siise ak daara yi sëriñ Abdoulaye Niass ci Kaolack jaar na tamit ci dëkk yi bari dëkk bii di Kër Bakary jaar na fa ak Thiarène ak Maka Guy ngir sàkku xam-xam atum 1987 ci la njëkk génn Sénégal ci concours boo xam ne ligue islamique mondiale moo ko amaloon mu jëloon raw gàdd ga may ko bourse mu demoon ca Murtani doon fa jàng ginnaaw la fa jógee Murtani dem Arabie Saoudite mottali fa am njàngam ginnaaw bi la ñibbi Sénégal di jàngale boole ko di bay noor ak nawet am xaali Badara Ndaw imaam loon bu dëgg te ñeme dëgg saa yu gisee loo xam ne jaadul ci réew mi dana ko dénoncé ba ñëpp dégg ko atum 2015 ci lañ ko tuumaal ne terroriste la ba ñaari atu koso bu weer ñi bàyyi ko xamal ko ni ko li leen tuumaal dara du ci dëgg mu continué ab liggéeyam ci jàngat jàngale ak di bay noor ak nawet ci diir bu gàtt la ko ab tewat tëral mu wuy ji moom moom imaam Ali Badara Ndaw mu bàyyi fi ay naal yu rëy yoo xam ne bokkoon na ci daaraam ji nga xam ne bëggoon na koo tabaxaat ba mu méngoog jamono. maam Xani Badara Ndaw mi ngi faatu le 6 septembre 2022. liggéeyal na Sénégal lu mbindeef dootul fàtteti. imaam Ali Badara Ndaw yàlla nañu ko yàlla fayal te xaaree ko àjjanay firdaws firdaws